لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إلنا إلا إليك التجا الظهرا ولسنا نقاف الضر ممن سواك لا كذلك لا نرجو سوى يسركم يسرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي amaan nañ mbégte toog ak yéen ci jataay bii nga xam ne li ko waral mooy tàbbi nañ ci weer wu tedd di weer wu màgg woo xam ne Cheikhul Khadim moo waxal boppam ne weer wi teral na ko weer woowu mooy wan mooy weeru rajab ku ne xam ne ne bokk yi weeru rajab ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam rañaane woon ca boromam subhanahu wa taala andil ñu sëri caam bu mag bii te mooy waxtu julli juróom waaye ku xam ne ñun murit am nañ ci tawfeex ju yaatu ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ci la jàmbaari lislaam ja di Cheikhuna Mouhamadul Fadal ma nga xam ne lépp lu Serigne tubaab bëggoon tegoon na ca tànkam ba defal ko ko ñu dégg bayit yi nga xam ne Baye Galas Mbàkke moom Cheikh Abdoul Fatah yëkkati na ko tam ci doon tawatal jamono ci jamono joo xam ne xatoon na lool bis boobu nag moo agsiwaat loolu moo tax bi mu agsee ku ne xam na ne Serigne Abo Baraka mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadal gépp ànd ko ak ay rakam di sëriñ Basiiru ma nga xam ne mooy jëriñam waaye Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne moo yore kàddoom te toog ci këram tey jii mu demaat ca sëriñ Mouhamadul taxaa ndax ku ne na xam ne sëriñ Fàllu ku koy tudd ndigal rek ngay tudd moo tax mu demaat Cheikh Mahamadul Muntaxa laaji waat ko ndigal nag ba mu jox leen ndigal nag loolee nga xam ne moom lañ fas yéene waajale màggalu kazu rajab te mooy bisub Cheikh Mahamadul Fadal ba mu ganee woon àdduna daaru salaam bis boobu nag moo dëgg malaat moo tax ñu ngi toog ci kër sëriñ Abdul Fatah mu fab kàddoom jox ko Cheikh Mahamadul Murtala rakkam mu feggoo ak sëriñ Ahmadul Badawi ak mbooleem sëti Cheikh Mahamadul Fadal yi nga xam ne ñoo yar lépp lu jëm ci waajtaayu bis bi kaddu yooyu la sëriñ Mahamadul Murtala bëgg a yëkkati mu jëm ci nan nun nañ war a waajale màggalu kazu rajab ak yan wan taxawaay lañ ci war a am sëriñ bi nee na mi ngi muslu ci seytaane di wax aouzu billahi mina saytaani rajim di wax bismillahi rahmaani rahim mu wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki julit yëpp nee na bàyyiwul kenn di ci turu sëriñ Abo mi fi toogal Cheikh Mahamadul Fadal ci turu jëwriñam Cheikh Mahamadul Basir ak jëmmi Cheikh Abdoul Fatah mii nga xam ne mooy rek kàddu kër gi nee na nuyoo yooyu yëpp nag ñu ngi koy jébbal Cheikh Mahamadul Muntaxa mi fi nekkal sëñ Touba tey ñaan mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu sëñ Touba gépp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp ci barke Serigne tubaa nee na Cheikh Abdoul moo ko jox ndigal ni wax ne na soññee màggal gi màggal gi kenn fàttewu ko waaye fàttaliku daf ñoo war ndax sunu borom moo ñu ko digal ci alxuraan kon noo ngi fàttali màggal gi muy bisub Cheikh Mahamadul Fadal di bisub yonante bi sallallahu alayhi wa dem baytil maqdis jóge fa dem fa sun borom mu jox ko ngëneel yu bëree bëri muy ngëneel yoo xam ne am na ngëneel loo xam ne ñun ñëpp nag ñoo ko bokk muy julli yu juróom waaye nag ci biir loolu sunu sunu wayjur sunu wayjur sunu lépp sunu lépp Cheikh Mamadou Fadal guddi googu ci la gane àdduna muy gan gu tedd muy gan gu tedd gan gu yiwe gan gu bari xewal gan gu bari ay xewal defe naa mbooleem jànkat yi defe naa ne mbooleem jànkat yi mosuñoo gis benn téere mu bind ni mosuñoo gis benn téere bu mu bind ne am na gone àdduna ci am na ku ñëw àdduna ci kaneen ku ñëwaat jamono ci guddi googu defe naa bu ñu koy wër day defe naa bu ñu koy wër day du yomb a gis la kon loolu taw feex sunu borom moo taw feexale alaaji sunu borom moo ñu taw feexale alaaji Fadlu Mbakke kon noo ngi ñaan ci barkeem ci barkeem ak léppam ak i léppam sunu borom defar sunu lépp tey ak ëllëg nee màggal gi nañ ko daan waxee yàgg nañ ko màggal yàgg nañ koo màggal ci teew Cheikh Moustapha Fadilu ci na ko daan daan digle noonu la ko defee ñëpp ànd nam ko daan digle ñu daan ko ànd ñun ñëpp ak sëriñ bi ginnaaw bi alaaj baara taxaw moom it la sëñ bi daan digle mu di ko digle ñu daan ko def nañ ko daan defee sëñ Abo Mbàkke mii fi teew nag di ñaan mu yàgg fi ca moo tax mu joxewaat ndigal yooyee rek ñu seet nañ ko bëggee rek mu ne sëñ Muntaxa it ni mu ko waxee ba fa sëñ aboo demee mu laaj ko ndigal def ko ne nañ ko defee woon daaw rek nañ ko def ren jii kon ñu xam ne nun ci ndigal la ñuy tënku rek buñ señ bi digalee ñu def fas yéene it duñ tere moo di màggal gi. li ci li ci ëpp solo li ci ëpp solo dëgg-dëgg. li ci ëpp solo dëgg-dëgg. jàngum alxuraan jàngum alxuraan la. waaye dafa fekk sëñ Muntaxa joxe ndigal. joxe ndigal. ñu ne nan daal di tàmbali jàng alxuraan. ba bisu kasu rajab ba. nee na nag ñu nañ ci daal di yokk nag rek. njàng mi lu mu gën a bari. gën a baax. xasida it lu mu gën a bari gën a baax. salaatu ala nabi lu mu gën a bari gën a baax. kon nag. nañ ko nañ ko doxale rek. nañ ko daan doxale rek. ginnaaw gan ñi dañuy ñëw di ñu seet si. ginnaaw gan ñëw di seet si. di ñëw Cheikh Mamadou Fadal. di ñëw ci Cheikh Mamadou Fadal. nañ leen teelu ci yar. nañ leen teelu ci yar. ak ak ak taalibe. akuk taalibe. ak ak bernde rek. ak bernde rek. loolu am na ci solo lool. loolu am na ci solo lool. kon nag sëñ bi. kon nag sëñ bi. Eh, na ngi ñaan nag. na ngi ñaan nag. li xew ci àdduna bi. li xew ci àdduna bi. muy mbas mi. mi. mu jeex tàkk. mu jeex tàkk. am nañ ci yaakaar ne. nañ ci yaakaar ne. sëñ Fallu ci boppam. ci boppam. wax ne ku jub ku boromam la. wax ne ku juboog boromam la. kon bu ñu ñaanee ci barkeem. kon bu ñu ñaanee ci barkeem. mbas mi jóge fi. am nañ yaakaar ci ne. am allahu. dana fi jóge. fi jóge. mu dem foo xam ne dootuñu ko gis. kon nag kon nag kon daal loolu mooy ndigal liñ sëñ Fataa joxoon ma di ko wax. maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. sëriñ bi wax na ni. sëriñ bi it wax na ne. mi ngi koy yëgal président Macky Sall. mi ngi koy yëgal président nekk gërëm yëpp. ak mboolem nguuram gépp nag. bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn. ginnaaw loolu itam sëriñ bi ni mu digle. ginnaaw loolu itam li mu digle. nañ ko jëf ni mu digle rek. nga di masque. na yor ay masque. ak sel yi ñuy laal ci loxo yi. te bañ a jege. te bañ jege. loolu mooy ndigal sëriñ Muntaxa. loolu mooy ndigalul sëriñ Muntaxa. sëriñ Muntaxa lañu digal ndigalam lu mu digal rek. sëriñ Muntaxa lu mu ñu digal rek. def loola nañ def loola. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf yi ñoo jot a déggandoo kàddu ndigal yooyu ginnaaw boo xamante ne bii kërug ndigal laaji waat na ndigal ci bis bi nga xam ne bisub ngëneel la jëm ci àdduna bépp muy bisub Cheikh Mahamadul Fadal war a doon fukki fan ci weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab bis boobu nag ni ko sëriñ bi waxee jàng alquran te daal di koy tàmbali jàng ay xasida te daal di koy yokk waaye def ay bernde fu waaye mën a nekk tey moytu jaxasoo gi euh, sët yi nag ñi ngi tàmbali seen i ci nañ ko daan defee ci palaato yi nga xam ne moom lañ war a def ci télé yi ñi ngi ciy soññ képp koo xam ne yaa ngi yor ab télévision wala site internet loo mën a dugal ci waxtaani sëñ Fall yi wala nga nga soññ ci jaam jaami yàlla yi ñoo xam ne bisub ngëneel la bis la boo xam ne daal réew mi soxla na ñaan ca bisub ñaanukaay la ñoo ngi ñaan bala ñu caa àgg lépp luy njàqare ba tiitaange ci réew mi yàlla ko ci yàlla génne ci barkeb Cheikh Mahamadoul Fadal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu